عبرت بالفرقان ربي المعين مدد نازي وزاد الليل عبرت بالفرقان ربي المعين مدد نازي وزاد الليل أقص من الدنيا وزادي للجنان من قال لي أمام لي سفى الجنان ولاني الأبرار في أبرايا من قال لي بلنجي الخلال بديع العالمين جاري أكرمني البديع بالكتاب وسالني الجاري بالعتاب لم يرني إلى دخول الجنة خير بسالة العزيز منا لم يرني سجل ولا وعيد وأمري إلى الجنان عيد عفاري يسر المنصور الله حبا ولا إله إلا الله

وبفخار النبي يسرى عباد ذي الجلال والإكرام بخلد المراقب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن

غدا الجزائر منير تربتي نزع للنور الرسال والكتاب أزمان خدمة لدى أهل الكتاب تجيل ما ثبت للمشفعين على يميني على زلم بالنبي هداني الله وسعى عليه إلى سواه هداني الله وزادني إلى سواه هداني الله وزادني إلى سواه ñëpp ñaan sëñ ak jaay suñu borom yàlla na ko doon ay leeram comme nekkee dënal ko fuuf fi mu jugee bu barkib Cheikh Khadim lépp bi ñu xëyee suba ba léegi lépp lu ñu fi jàng ci alxuraan ak xasida ak i zikar tudd yàlla yàlla na suñu borom jotali ci yoon bi ci barke Cheikhul Khadim euh, ku ne xam na ni war naa mën a baax ndax suba ba léegi ñi ci alxuraan bi ak xasida yi ak yi lañ ko defee ñu bi ñu jàng fa ay kon yaakaar naa ni loolu rek war naa tax kenn ku nekk xelam gën a dal euh, buñ demee ba toll ci jeexantalu mooy bi sëriñ Saliou mi ñëw fi ku ku ko xam ku nekk xam ko ci xaside yi kon loolu it war naa gën a tax suñu xel gën a dal euh, kon ñi ngi ñaan mu ñaanal ñu ko te ñaanal ñu ko yéenee jëfal euh, fii mottali ko li nga xamante ni moom la yéene woon barkib Cheikhul Khadim yan ko koyof kon dañ koy bàyyi rek mu ñaanal ñu tëjal ñu bi su ko defee balaa ñoo yebee ko jox suñu yàlla jàngal ñu wala fa la suñu ñaar ko defee kenn ku nekk mën a delluwaat ci